jàpp bés ne nañ ko àtte le seize dafa jalgati yoon mhm. bi audience bi amee le seize président de la chambre criminelle gis ne mënuñu àtte dossier bi tey ndax diir bi nga xam ne moom la yoon wax mooy buñ la dégloo déglu bu njëkk mooy interrogatoire d'identité pour ne la yow Ndeye Khady Ndiaye ak sàngam nga juddu est-ce que yaa ngi teew pour pare layo bi am na Ndeye Khady nga fa woon mais war na am ñett fan ñu gis ne benn fan la mu renvoyer ko d'office renvoyer d'office mooy moom président de la chambre criminelle moo jël sañ-sañam ne dossier bi c'est pas régulier nañ ko renvoyer tey talaata mhm. te bés booba d'ailleurs bim ko renvoyer d'office ne daf koy dàq tey mhm. man jëloon naa kàddu ne ko def ko benn date boo xam ne dañ mën a am jot xool dossier bi càmbar ko parce que man damay door a consulter wu ak sumay nawle avocat mhm. ça veut dire lan mooy man ak juróom avocat ñuy juróom benn bi ñuy càmbar dossier bi au niveau du juge d'instruction ñun ñu woon ca dossier ba mhm. ñun bi dossier bi ñooy chambre criminelle la ñu door a constituer mhm. te aussi méngoo na ak yoon parce que mën na constituer avocat ba bés bañ naan tey lañ koy layoo kon ñu ne donc en vertu du principe du droit de la défense parce que boo demee suñu constitution article neuf dafa la naan le droit de la défense est un droit absolu Mhm. à tous les états et à tous les degrés de la procédure mhm. ça veut dire en instruction bu ñu koy càmbar ci juge d'instruction mën nga indi avocat booy ñëw jugement mën na indi avocat boo demee appel mën na indi avocat boo demee cour suprême kon ñu sukkandiku ci ce droit à la défense mooy jël sañ-sañ bi yoon jox Ndeye Khady Ndiaye pour mu tànn avocat yeneen yu ko neex pour ñëw mottali ñi fi nekkoon ñu yokkante doole pour mën ka layol lay bu mucc ayi Mhm. kon ñu sukkandiku ci loolu pour ne donc dañ ko dàq mhm. pour ñu mën a jël suñu matukaay yépp liir dossier bi càmbar ko waxtaan ak suñu cliente ci liñ ko bëgg a laaj waxtaan ñun suñu biir avocat yi parce juróom-ñeent lañ te juróom-benn yi ñu ngi door a consulté wu pour wax ñun suñu tëralin ak suñu doxalin ci layoo bi nan lay nekkee mhm. ñu seetlu ne ñun biñ nekkee avocat ba tey une affaire qui vient pour la première fois ñu commence di renvoyer même dossier yi fi indi coow yëpp renvoyé nañ leen deux fois ba troisième fois mais bii ñu ne kenn du ko renvoyé ñu wax wax ñu ne kenn du ko renvoyé bi ñu constaté ne jël décision retenir dossier bi mooy jël dogal mhm. chambre bi ne daf koy atte tey ñu jàpp ne lool day jalgati suñu sañ-sañ mhm. muy sañ-sañu ndey xadi bi à partir de ce moment là ñun ay avocat lañ le principe du droit de la défense c'est un principe absolu mhm. mënuñu ne nañu layool nit te kenn du ñu may ñu jël suñu matukaay càmbar gëstu waajal layoo bu toll ni biñ ko jalgate ñu ne ñun ñoo continuer parce que bu ñu fa nekkee dafay mel ni dañuy dëggal jalgati boobu moo tax ñu décider retiré wu mhm. mais li ci am nag leneen li gën a doy waar mooy en matière criminelle ñëpp xam nañ ko mhm. ñu mën a atte kenn bu amul avocat mhm. donc ñun avocat yëpp génn nañu retiré wu mais malgré tout la chambre criminelle nanguwul jël avocat pour Ndeye Khady ne daf koy atte sans avocat alors que le code de procédure pénale dafa ne bu ñuy atte nit en matière criminelle mhm. dafa war a am avocat obligatoirement ça veut dire quoi li tribunal bi waroon def mooy chambre criminelle bi mhm. mooy ñun bi ñu retiré woo ñun juróom-ñetti avocat ñu désigner ko kenn oo kooku su ñëwee demander renvoi pour connaître dossier bi mhm. ñaan ñu dàq ko pour mu mën a gëstu dossier bi mais pour bañ loolu donte yoon moo ko may ñu ne dañ koy atte sans avocat loolu moo fa xew tey ci suba ñu koy ñaawlu di ko dénoncer. Mhm. kon information yi ñuy wax que ni euh, dañ ko indil benn avocat commis d'office nekkul information yu wóor. en tout cas ma fay jóge mhm. parce que li ma mën a wax mooy ba bi ma fay jóge mhm. loolu amuloon ba bi ma fay jóge maintenant nag bi ma fa jógee léegi ëpp na waxtu xaw ma nag ci ginnaaw lan moo fa xew. mais même buñ ko indilee avocat buñ ko maître d'office ko maître d'office mooy. avocat boo xam pour mu ñëw taxawu ko xam nga avocat bu ñu jël tey ne kay taxawu nit mhm. dossier buy def ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn ci këyit mhm. ak la mu àndal mhm. avocat boobu mënul layoo dossier bi parce que xamu ko bu demee lu muy wax et même bu amoon avocat bu def loolu danga nga commettre une faute professionnelle parce que avocat mënoo layool sa client te waajaloo ko kon man boobu ma fay jóge loolu amul bu amee itam na ma jaaxal parce que loolu méngóol ak yoon xaw ma ban avocat mooy nangu layal koo xam ne au lieu na dimbale ko da nga koy lor parce que booy layool nit danañ koy tuumal xamuloo ko càmbaroo ko gëstuwoo ko kooku dimbalee too ko taxawoo too ko yaa ngi koy lor. Mhm. gawuma loolu avocat am fitu def ko. maître Moussa Sarr kon ka nekkuma fa xaw ma li xew ci ginnaaw. maître Moussa Sarr. oui Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax. Ah. monsieur le directeur na def Diop. Eh, jërëjëf maa ngi nuyu baax alors euh, là dama tiim benn euh, texte bu may wax ne euh, bi ngeen fa jugee maître Malick Lo la ñu de d'office pour mu défendre Ndeye Khady Ndiaye bi mu ñëwee il a demandé à connaître le dossier ce qui veut dire que day demander renvoi ñu bañal ko ko est-ce que information boobu jot nga ci maître Malick Lo. waaw maître Malick Lo déjà. Mhm. moom tànnoon nañ ko comme avocat déjà le quinze du tey lañ ko tànn. Mhm. Malick loo omettre nañ ko déjà le quinze parce que mm. en matière criminelle au Sénégal mm. su amee audience donte am nga avocat au moment de l'interrogatoire dañ lay désigner kenn d'office kon maître Malick Lo tànnoon nañ ko depuis le quinze mm. mais Malick Lo musul ñëw ci audience ba tey ñun ci suba bañ fay jóge ñëwuloon mm-hmm. Mm-hmm. donc ku ñëwuloon ba tey ci suba peut-être bi ñu génnee la ñëw mais bu génnee bu ñëwee suñu ginnaaw tam mënu ko layoon parce que xamul dossier mm-hmm. mais xaw ma ndax ñëw na mais Malick tànnoon nañ ko ba pare depuis le quinze sama kanam la parce que man ci ñu yóbbu Ndeye Khady mu def interrogatoire am ci laa bokk. Mhm. man ak maître Ibrahima Mbengue ak maître Balde. kon Malick Lo du tey lañ ko tànn tànnoon nañ ko ba pare mais musul ñëw même audience su 16 bi ñëwul. ay tam ba moo fay jógee léegi 13 heures et quelque ñëwuloon. et même bu ñëwee tam mënul layoo parce que xamul dossier. Mhm. te ko boo xamul dossier mënoo layoo nit ci noonu lay too ko. dana ma jaaxal lool mu layal ko. déggaat naa beneen information comme quoi que yéen aussi da ngeen demandé woon renvoi wu procès bi euh, parce que tout simplement état wu euh, soxna si Ndeye Khady état de santé am ko que mu taxaw ci euh, ci boobule atte est-ce que loolu aussi dëgg la. non ñun sàkku nañ pour ñu dàq layoo bi pour mën a permettre juróom-benn avocat yi nga xam ne ñu ngi door a ñëw ci dossier bi man ci juróom-benn yooyu laa bokk. Mhm. parce que juróom-benn avocat lañ ñett ñoo ci nekkoon enquête ba ca juge d'instruction la ou ca gendarmerie ñun juróom-benn yi laa bokk bokkuñ ca woon ñu ngi ciy door a ñëw nii ñun ñoo demandé ne nañu renvoyer pour ñu permettre ñu gis dossier bi mën ko waajal càmbar ko ñu bañal ñu ko kon ñun ñoo ñaan renvoi bi mais ñaan bi teguwuloon ci état de santé indi waxu état de santé bi mooy Ndeye Khady mhm. dafa ëmb ba toll ci juróom-ñaari weer bi mu ñëwee mhm. ñu utal ko chaise ñun avocat yi ne ko toogal. Mhm. président de la chambre criminelle ne ko doo toog. accusé nga da taxaw. Mhm. ñu taxaw temm ne ko jaaduwul yoon waxu ko amul fenn fu yoon bind ci këyit ne accusé dafa war a taxaw rax si doon ak soxna bu ëmb bu ci juróom-ñaari weer. Mhm. kon dafay war a toog parce que conditions yi mu mënu ci taxaw. te dafa nekk jigéenu wóor juróom-ñaari weer. et que la justice dafa war a nekk une justice humaniste humaine kenn mënul taxawloo te yoon mayewu ko fenn exigé wu ko nañ ko jox mu toog président tribunal bi bañ coow li bëri bëri ba ca mujj ga mu ne indil leen ko chaise mu toog d'ailleurs pour bañ sax mu toog dafa yónni benn gendarme ne ko chaise bi avocat yi indi teg ci wetam jël ko yóbbu ko fële parce du toog mais bi coow li demee dem ba ca kanam mu ne nañ ko may mu toog mais xam nga ñun Sénégal euh, nous sommes des hommes d'honneur coow li ak lu muy bëri bëri mm-hmm. dafa am loo xam ne kenn du ko fi nangu mm-hmm. kon kat tooxal nañ ko gàcceel ko ci mbooloo mi mm-hmm. ñu indiwaat ko siège mu ne maa bañ du ma toog li mi nit ñi am nañ fulla am nañ fayda honneur dafa bañ ne du ma toog xaw ak ëmbëf ba du ma fay jóge man dafa bañ ñu indiwaat ko attekat juge bi laaj ko président tribunal ndax da toog mu ne tooguma damay taxaw dem jël ay dala caraxam sol ko taxaw looloo fa xew mais donc demande bi du pour état de santé mais parce que lañ ko def te ñu jàpp ne rafetul. du ma la retenir parce que jamono ji yaa ngi nekk ci audition wu Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou Gueye di fàttali ni mooy journaliste euh, bu nekk fële ca Sen TV borom yor-yor moom aussi euh, jamono ji dafa am ay euh, jafe-jafe ak àttekat yi wala sax ak police parce que dañ ko topp ci benn article boo xamante ni da ko publier ci boobu les quotidiens mën nga ñëwal rek ci tënk si état d'esprit am ak jamono ji lan la ñuy toppee Serigne Saliou Gueye lay bàyyi. Euh, li ma ci mën a wax mooy mënu ma ci xuus parce que si bi dafa nekk à l' baa ngi déroulé mhm. dama génne ni parce que dañu dañu retiré wu ci audience bi rek mu jubal si au niveau du commissariat parce que dama fi yónnee woon suma benn ndaw avocat en attendant donc li am rek mooy convoqué nañ ko ñu ngi koy déglu loolu la ñu mën a wax pour le moment naa Serigne Saliou il est serein mu ngi ànd ak dal ànd ak tey jàpp na ne te moo am itam te deful dara luñ ko toppee mais mënuñu xuus wax liñ koy laaj ak li muy tontu jëmmi jamono dinañ ci ñëwaat wax yan infraction lañ ko toppee mais pour le moment daal ñu ngi koy déglu depuis dix heures ba léegi mu ngi tontu. Mhm. man dama jóge tribunal ñëw euh, fekk si suma collaborateur bi ma yónni woon. ci suba mu nekk si. Mhm. ñu ngi toog xaar peut-être d'ici dix huit heures nañ ñu lëtt mbaa ñu firi foofu rek lañ ci mën a yem pour le moment.